investir nañ ko pour mu nekk candidat élection présidentielle atum 2024 mais nag ñu ci bari instant bi kenn rek la ñuy xaar muy conseil constitutionnel ba xam dina valider candidature Ousmane Sonko am déet ndax ñépp rek xam ngeen ne candidature Ousmane Sonko instant bi dan naan instant bi nag cate na ndax gis ngeen ñi valider na leen ñii da leen def invalider ndax Ousmane Sonko conseil constitutionnel Badia Camara dina ko jàllale am déet li ci kanam rawali gët ginnaaw ban waroon a vérifier li nga xam di parrainage am te ki nga xam di mandataire am bi ñëwul woon xuma nag stratégie lan tegoon mooy ki nga xam di Maître Ciré Clédor Ly ginnaaw ayib dafa moo nekkoon mandataire mais instant bi kii nii di mais Maître Ciré Clédor Ly moo nekk mandataire bu président Ousmane Sonko léegi kon nag xam naa côté la cinq yooyu la ñuy vérifier pour li nga xam si nag moom moo di parrainage yi ki nga xam moo di Ousmane Sonko ba xam dañ koy valider candidat yi mu jàll am déet da ci kanam réewu liggéey di ngeen ko gis.